secrétaire général ADPME alors ñu ngi fi dajee fii Thiès ak euh, acteurs économiques yi surtout ña nga xamante ne dañ leen euh, gunge ci ñaari at yi ñu weesu euh, ñëwoon nañ fi bi ñuy lancé programme bi programme bi mu ngi tudd SME Business Look ba ñu demee ba jeexal ko tamit dafa baaxoon ñu ñëw bokk ak ña nga xamante ne gunge nañ leen mais surtout bokk ak acteurs région yëpp résultats yi ñu am ci projet bi projet bi nag ñu ngi ko déroulé ci Euh, quelques région Thiès bokk ci ñu mën cee lim Dakar Kaolack Saint-Louis ak Ziguinchor euh, ñu jàppale leen ci ay ñaari cohorte cohorte bu nekk amoon nañ ci li toll ak euh, ñetti téeméeri entreprise tey soo jëlee projet bi yëpp gunge nañ ci ñaari ati ñu weesu euh, juróom benn téeméeri entreprise jaarale ko ci juróom benn région yi euh, lañ ca mën a jàpp fii ci région Thiès mooy am nañ lim bu takku li ëpp téeméer ak juróom benn fukki entreprise jàppale nañ leen fii ci Thiès euh, jàppale bi nag du ne seulement ñëw former leen bàyyi leen déedéet dañ leen former ñaari yoon mais ginnaaw entreprise bu nekk ñu toftal benn coach li ñuy wooyee benn coach maanaam ka nga xamante ne day ñëw ci entreprise bi ñaari yoon ci weer bi ndax xool ndax la nga xamante ne jàngal nañ ko ndax mi ngi koy appliqué ndax mi ngi jëfandikoo jumtukaay biñ ko jox pour que mu mën a tenir comptabilité ndax la nga xamante ne entreprise am bi yëpp soxla na ko mu ngi ciy tegu donc loolu la ñuy wooyee coaching te programme bi nag coaching la woon ñu jàppale leen pendant juróom benn weer euh, xool ndax fa ñu nekkoon jóge nañ fa xoolee lañ fi wone mooy Euh, dañ ci toftal ci juróom euh, benn téeméeri entreprise yooyu euh, téeméer ak juróom fukk ya nga xamante ne ñu woon ci entre accompagnement bi mais dañ leen teg pour mën a xool ndax ña ñuy jàppale am na différence ak ña nga xamante ne jàppale ñu ween te foog na résultat yi ñu fi wone wone na ne approche bi approche bi nag GIZ moo ñu ko andil Euh, daan nañ ko euh, def fële ci yeneen dëkk yi mais approche bu bees la woon fii ci Sénégal ñu nekkoon ci phase de test donc euh, jaarale nañ ko ci région yooyu gis nañ ne tey ñañu jàppale seen croissance chiffre d'affaires takku na li toll ci téeméer boolim juróom juróomi fukk ak li teg am na ci croissance soo xoolee seen résultat tamit ëpp na sax téeméer ci ci ay poñ donc dafa wone ne entreprise tey soo ko toppee nga koy won fu muy jaar nga koy tette lu mu soxla nga jox ko ko foog naa dina tax mu mën a avancer ñaareelu ponk bi nag mu am loo xamante ne benn jumtukaay bu bees la euh, ñu jaarale ko ci xarala yu bees yi euh, pour jàppale leen ñu mën a tenir seen comptabilité ñu ngi koy tuddee sama compta sama com sama bos sama comptabilité euh, dañ ko def digital pour que ku ci nekk ci ñoom nga war a mën a en tout cas tenir sa contabilité mais duñ ko sax joxe noonu parce que dañoo former ay dëkk bu nekk ñu jël fa li toll ci ñaari euh, fukk euh, étudiants ñi nga xamante ne dañoo jàng comptabilité ñu woon leen naka la ñuy def pour mën a jàngal entreprise yi ñu jëfandikoo jumtukaay bu bees boobu donc sama compta tamit lancé nañ ko fii jox étudiants yi ay ay jumtukaay jox leen ay tablettes jox leen aussi euh, yoon bi nga xamante ne foofu la ñuy jaar pour que ñu mën a enrôler déjà euh, ñii ñu gungee ci projet bi. waaw donte jigéenu Sénégal ñëpp xam nañ ne dañoo takku ci lépp luy koom-koom tey soo ñëwee fii nga xool di nga gis ne. en tout cas yenn secteurs yi jigéen yi ñoo ci gën a teew mais projet bi biñ koy tàmbali dañoo def euh, dañ tasaare Euh, xibaar bi fu nekk ñu nekk ka bëgg a dugg da ngay ñëw bindu ñu seetlu nag ña ca bindu woon jigéen ñi ñoo ci gën a takku moo tax mën nañ gis ne en tout cas ci ñi ñu accompagner seen lim moo ci gën a takku mais mën nañ jàpp Sénégal entrepreneuriat moom jigéen ñi ñoo fa gën a bëri parce que tey soo jëlee agroalimentaire bi nga xamante ne euh, moo ëpp en tout cas ci ñi ciy yëngatu. suñu yaay yi suñu rakk yi suñu jigéen yi ñoo ci gën a ñoo ci gën a nekk ñooñu nag soxla nañ ñu gën leen jàppale moo tax coaching bi gën a am njeexital ci ñoom parce que euh, chaque jour donte taxaw nañu takku nañu pour liggéey mais gis nañ ne ñu bëri soxla nañ ñu tete leen pour que ñu mën a am ay njeexital yu baax. waaw ñun ADPME dañuy contribuer ci la ñuy wooyee euh, action gouvernementale ADPME kuréelu état la ñuy def service public jaarale ko ci entreprise surtout entreprise yu yemamaay yi te foog naa fii ci Thiès ñëwoon nañ fi euh, am na quelque mois di lancer programme bu bees mais tey mën nañ ànd ak acteurs yëpp teg suñu baaram. ci la nga xamante ne moom la ñu am ci résultat ci projet bi ñu weesu